barakaatu euh, di nuyu monsieur le préfet ak euh, monsieur le maire ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi àndal ñëpp euh, tey nag mun naa wax ne bésu mbégte la man maa ngi tudd Abdourahmane Ba gunge fi sama rakk waaye sama turandoo Abdourahmane Ba mun naa mënoon naa wax ci turu en tant koo xam ne magam la waaye tamit mun naa wax ci turu en tant koo xam ne dafa bokk xëy na ci formation moom dañu wax nag njaboot ni mën a mel fi mu dëkk la koy la koy delloosi ah tey day wax dëgg yàlla ñun yaakaar naa liñ fi indiwaat en tant que njabootu Lour Escale en tant que njabootu Koungheul ak région bu Kaffrine eh, mun na siggil ñëpp mun na siggil ñëpp ndax eh, suñ waxee lauréat boo xam ne président de la république ci boppam recevoir ko sargal ko kon loolu rek am na li mu jëmmal ñun nag bi président defee en tant que président defal ñëpp ñu ne ah jaaru na kat ñu delloo ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu njaboote woon ñu ne ah li ngeen ñu dénkoon tey mu ngi nii te di ko sante rek borom bi subhaanahu euh, wa taala xëy na liñ ci sànni ci ay kàddu soññee lay doon mooy ñun ay ndaw lañ ndaw nag ki ko jàppale mooy ki ko teg ci yoonu xam-xam monsieur le maire junj na loolu yoonu xam-xam ku la ci teg daanaka kooku def la def la sotal kon ñun ndaw ñëpp nañ di jéem a jël exemple ci ñi nga xam ne dañoo góor góorlu ci seen wàllu wàllu njàng ndax euh, comme que nit ñi dañuy royante dañuy royante ci lu rafet ak lu rafetul boroom xel bu nekk su gisee ku yëngu ci lu rafet war na la yee war na la yokkaat taxawaay pour nga gën ci ngeen ci góor góorlu kon loolu rek moo waraloon euh, ñëw bi ñu ne ah en tant lii teraanga boo xam ne xëy na yéen ñi ñu jaboote yéen a ko ji ci ñun suñ demee bi jot ci tamit wax dëgg yàlla war nañ leen ko delloo si waat ñu ne leen mu ngi nii lii ngeen ñu joxoon wax dëgg yàlla ñu dégg ñu déggul waat yéen tamit seen i orientation waaye lépp loo xam ne gis ngeen ne li war a jàppale ndaw bi nga xam ne dafa góorgóorlu ci wàllu xam-xam ngeen jàppale ko ci côté boobu loolu rek moo doon euh, jubluwaay bi di leen gërëm ci disponibilité bi tamit ndax heure bi ñu fi ñëw tamit mënoon na am bu dul woon disponibilité boobu euh, du leen ci fekk waaye da ngeen a jàpp ne lii li ngeen moom la moo tax mu jaral leen loolu wax dëgg yàlla di rafetlu euh, disponibilité boobu ak accueil bi di rafetlu tamit kàddu yi nga xam ne moom la monsieur le maire yëkkati moom tamit comme ni ma ko waxee moom mënoon na wax sax en tant que lu en tant maire waaye en tant que waajur ndax waajur waajuram la. Euh, kon euh, monsieur le maire ñu ngi la ciy félicité yow tamit di ci félicité monsieur le préfet ak ñi nga xam ne ñu askanu Koungheul yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp seen tur ak seen sant maa ngi noyu sous-préfet de nuyu usta yi nga xam ne ñoo ànd ak suñ kale bi di leen gërëm di leen sant ci seen takawaay kale bi it maa ngi ko noyu de ko gërëm de ko sant ndax dafa nekk kale boo xam ne kale bu am fulla bu am fayda la ndax defa jóg ci kër waajuram dem sàkk ji xam-xam yàlla may ko lim ko may te yàlla su lay may dara dina fekkee yaa ngi ci yëngu su fekkoon bi mu demee da doon nelew rek wala topp portable rek de workshop amaana doon am li mooy am kon ñu ngi koy wax jërëjëf gërëm nañ la sant nañ la Abdourahman Ba de gërëm de sant sa waajur ñi nga xam ne ñoo lay tàggat ci lii bu doon ñem meloon nañ ni ustaas Amadou Ba danoon fekkee yëngu-yëngu du bari ci commune Ndour Escale ndax yëngu-yëngu yu bari li koy waral mooy ñàkka yar xale yi kii du yëkkati benn fin na ci li ma jàpp kon jërëjëf ustaas Amadou Eh, ñun kontaan nañ trop li tax ñu kontaan lii dafa nekk eh, ngeneel ci commune Lour Escale dafa bokk ci li nga xam ne day yëkkati turu commune bi day yëkkati turu dëkk bi day yëkkati turu sa région bi ndax day génn ci adduna bi yëpp kii fu mu Sénégal fu mu dëkk région Kaffrine fu mu dëkk ron département Koungheul fu mu dëkk commune Lour suñu waxee commune Lour rek dañ may laalaale kon jërëjëf li nga liggéey man bokk naa ñi nga koy liggéeyal kon maa ngi la ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokku weer bi yokku yar bi yokku man-man bi yokku engagement bi ba may la li nga xam ne weesu nañ suñ njorto man de kontaan naa tey trop ndax man naa wax ne ci rajo lay wax man na saa wax bi am niñ koy gisee waa fekkee demeehu noonu soo koolee commune Lour Escale laa mën a wax comme que foofu la ma yàlla teg njàng bi ci ñun dafa kaw a wàcc ñemewuma wax amut waa dafa kaw a wàcc ndax suñ wilaay daanaka doo fekk benn dëkk boo xam ne am na daara mbaar mbaar benn benn la suñ buggee dem jàng suñ buggee toog waa char lii su amee man na ñu bare bare jogaat pour eh, roy kon jara jëf mel na ni yokkal nga ñu lu bare bare bare bare ci suñu commune gërëm nañ la sant nañ la ñun ak tànk maa ngi wax ci turu commune Lour Escale ci turu population Lour Escale ci turu conseil Lour Escale ñun dey ci dooleem ci lañooy ñooy ci liñ am ci lañ mën a baakee nit ki ñun su ci yàlla àndee baake nañ la ñaari teere fi nga xam ne li nga amee benn su ko yàlla yóbbee kanam fi nga xam ne danga fa mën a dekk xellek samp fa école samp fa juma ngay jàngal suñu kale gërëm nañ la sant nañ la gërëm préfet gërëm Eh, usta ñi nga xam ne ñoom ñoo la doon encadré ba yàlla ma ñu liñ ñu may gërëm naa saay doomi ndey saay doomi bàyyi gërëm naa ñëpp sant ñëpp asalaamaaleykum wa maa ngi nuyu ñëpp eh, monsieur le maire maa leen nuyu eh, cher encadré également maa leen nuyu ak ñi ko accompagné ñëpp ses parents di commencer rek di wax ne dama bëgg vraiment dama bëgg loolu parce que euh, ñëw recevoir le meilleur élève en arabe du Sénégal kooku ci crois que plaisir bu gënul gënul mag loolu donc euh, dañ koy féliciter di ko féliciter bu baax a baax a baax Abdourahmane Ba vraiment ñu ngi lay présenter toutes nos félicitations euh, li nga am yàlla na la jig si nga. mu nekk loo xam ne aussi mun nga ko multiplier des fois des plusieurs fois si mu jig la félicitation parce que man dama xam parce que man jàngalekat la damaa def lu mat ñaar fukki at si classe yi comme professeur français mo sama ñaar fukki at am ne lan ma ñëw indi ma adjoint sous préfet fii donc xam naa lu nekk si joie buy animé n'est-ce pas ku ko encadré war a ku nekk professeur am donc à travers euh, ce encadre Abdourahmane Ba maa ngi féliciter également tous les autres enseignants bu nekkee élémentaire ba jaaree moyen ñëw secondaire donc maa ngi si féliciter ñëpp di xam ne di di partager également la joie parce que xam naa joie bu ñu am quand tu reçois un élève boo xam ne am na prix surtout prix n'importe c'est pas n'importe quel prix concours général si on ne prend que les meilleurs meilleurs rek la ñuy jël si Sénégal bi donc rawatina encore mu nekk waxuma sax deuxième prix mais troisième prix mais moo jël premier prix arabe kooku vraiment euh, félicitations di féliciter également tes parent parce que aussi euh, nag comme lu ko président son excellence Macky Sall waxoon keroog bu ñu leen di wax prix yi mu ne aujourd'hui vous êtes les du jour mais c'est vos parents ñooy les héros de tous les tous les jours donc tey yéen lañuy ñuy sàggal mais seen papa moom seen papa ak seen waajur yi ñoom dañoo mérité ñu leen sàggal tous les jours donc loolu aussi vraiment je tenais à féliciter sa parents yi yal na leen yàlla xaw ma ndax ñu ngi dund war a dund ñu voilà donc yàlla na leen yàlla may fan gudd wër yaram ñu dund ba fekkee sa njëriñ waaw vraiment loolu ñuy ñaan. Euh, di féliciter vraiment comme ni mu ko wax encore les enseignants vraiment Abdourahmane di ñëwaat di la féliciter bu baax a baax a baax euh, kàddu yi ma lay dénk mooy ndaw nga ndaw nag dafa nekk ci yoon parce que boo xoolee sa cursus scolaire sa parcours c'est un parcours excellent parce que gis naa sa parcours te élémentaire ba fi nga nekk toll tey première vraiment tu as fait que de bons résultats daaw de ko ba muy def BFM moo nekkoon premier centre. et une moyenne de 16 virgule kooku vraiment il faut bien pour pour nekk vraiment loolu donc lii lii nekkul chance mais mérite la c'est vrai que chance mi ngi si mais mérite la parce que mérité donc quand on première ngay def déwén terminal donc ñu ngi ñaan aussi déwén président joxaat le prix si incha allah dina ko def donc kàddu yi mu lay dénk rek mooy nga continuer sur cette lancée ndaw nga euh, ni nga mel. continuer noonu humilité il faut être humble élève bu nekkee di jàng il faut toujours nga cultiver l'excellence si xam naa si yoon boobu nga nekk donc dara la bu mu la si dindi dara dara bu mu la dindi parce que actuellement société bi dafa xaw a jaxasoo pour tuuti rek ñu xaw la yóbbu la foo yóbbu foo xam ne nekkoo fa parce que concours yi ñu koy ñu depuis cinquante ans donc ñu si bëri. jaar nañ si mais ñu si mënul téye seen bopp dëgg-dëgg après dévier nañ ndax succès bu ñu am dafa neex président recevoir la jox la prix si boo góorgóorlee déwén am ak terminal comme ça feneen lañ lay wax feneen lay gis donc continuer sur sur voilà nga continuer sa humidité bi nga yore c'est que boo xoolee sa encadré nga xam ne noonu noonu rek nga mën a mel ah ak tes parents tes donc euh, vraiment di la ñaanal yàlla yàlla may la fan gudd wër ñaanal la vraiment que comme ni ko maire waxee noo nekk euh, benn commune boo xam ne dëgg la loolu euh, enseignement bi kiiwul noonu waaw mais donc bu ñu gisee un élève de cette commune bu bu nekk sur benn voilà pour mën a vraiment lay ñaanal pour que vraiment nga nga nekk un exemple un exemple n'est-ce pas pour tes autres fraires ñuy ñëw sa ginnaaw parce que xam naa ne moom à partir de de yow. dana naa gis naa ne ñeneen ñi dana gën a góorgóorlu pour am li nga am waaw donc loolu rek c'est un bel exemple boo xam ne vraiment war na si gërëm bu baax a baax a baax euh, di remercier également tes frères xaw ma c'est kii a ah, vraiment ñoom ñëpp parce que lii aussi euh, lii rek ngeen ko mën a defal lii rek ngeen ko mën a defal am rakk bu brillant ngeen ne ah càpp si loxoom di ko wërale pour montrer ko. vraiment loolu aussi ñu ngi leen si gërëm leen sant en tant que autorité en tout cas de la commune euh, de l' arrondissement de Lour Escale euh, loolu la tête pour parole yooyu daal laa amoon pour tenir ko euh, di encore renouveler mais félicitations à Abdourahmane Ba di ko souhaiter n'est-ce pas une longue vie pleine de succès waaw si lii nag yàlla bu mu nekk vraiment mbujjant bi yàlla da nekk ay ay ay ay ay lu bëri bëri bëri nga xam ne vraiment toujours au va citer un exemple voilà ñu ngi leen gërëm di leen sant di remercier tout le monde la presse ah vraiment ñëpp voilà di wax ne yii moom euh, comme ni nga ko waxee sama disponibilité daf ma daf ma war parce que lii jombul am waaye parce que moo ñu war sax parce que ñun on ñun ñun modèle bu ñu gisee modèle ñu si kontaan donc modèle bu mel nii nag mënoon nañu toog ba 15 heures que 16 heures boo leen ñëw dinaa leen toog xaar leen parce que jaral na ma ko waaw non seulement sama parcours comme professeur mais aussi sax sama autorité comme ni ma nekk autorité dëkk bi di di di exceller vraiment di di dugg la du bëgg toujours loo xam ne lu jëmee Camara commune bi la donc loolu jaral na ma ko donc vraiment maa leen gërëm di leen sant di leen sant bu baax vraiment toutes mes félicitations ah Abdourahmane vraiment vraiment on est très